bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal aw yiw te di ko sàkku ci yéen di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu boole ñu dimbali fas yéene tàmbali liggéey bi nga xam ne doon nañ ko junj muy téere bi tudd euh, safwatu siira bu sëriñ alxaaji mbàkke war waxtaan ci dunduk sëriñ bi waaye ci ab tënk ndax téere bi dañ koo tënk xam naa dina feeñ ci tàmbali gi incha allah waaye ni mu toftaloo rek mooy sëriñ alxaaji waxtaan na ci ak njalbeen ci téere bi njëkk feeñuk sëriñ bi mooy njalbeenu téere bi euh, li ciy topp mooy feeñuk sëriñ bi ci boppam wàllu njàngam nerawuk Maam Mor Anta Sali tàmbalik tarbiyaam demuk sëriñ bi ci géej gi ñibbisik sëriñ bi demuk gànnaar gi demuk jolof demuk jurbel buñ ci jógee danañ waxtaane lenn ci soxnay barsax yi ak waa kër sëriñ bi ni ki doomam yu góor yi ñan lañ waa kër sëriñ bi yu jigéen doomam yu jigéen ñan lañ euh, buñ ci jógee pexe yi nga xam ni tubaab yi am nañ ko te jëloon lépp jëmee ko sëriñ bi buñ ci jógee melawu sëriñ bi melaw yi nga xam moom la sëriñ bi meloon ci jëmm ak ci doxalin fonkuk sëriñ bi alquran làquk borom tuuba ndigalul jumaa ji ak dénkaane yi nga xam ni lan na ci dénkaane yi nga xam sëriñ bi doon na ko def bu ñu noppee solos téere bi maanaam solos nettali gi incha allah moo war a doon liñ ko war a toftalee ndax noonu la téere bi toftaloo bu ko defee ci ak njàlbeen ñuy xam ne nii sëriñ alxaaji mi nga xam moo bind téere bi ñu bëree bëri xam nañ ko ci ak jàmbaar ci ak bind di taalif waaye doon ab jàngalekat juddoo fële ca Daarul Muxti sëñ ab Absa di way juram eh, ak soxna Bintu soxna maam Boussa mu sëñ Saaliw bu ma jumut sëñ jur way juram bu jigéen jàng fële ci kër sëñ Sohaybu waaye kër sëñ Abibu ak njaareem waaye nekkoon fële ca ko eh, xam naa dañuy tënk ndax waxuñu ci jaar-jaaram waaye rek comme moo bind téere bi xam la leen ci moom donte ku ñu xam la kon loolu mooy doon waxtaan wi incha allahu rabbi xëy na dina mat juróom-ñetti jataay ni ma ko gisee wala juróom-benn incha allah tey jii war a doon suñu njàlbeen ci téere bi bu soobee yàlla. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon xam naa ñu door liggéey bi. fiñ koy doore nag mooy fii sëriñ alxaaji di waxe nii ginnaaw bi mu yëree lu bëree bëri ci ay téere yuy waxtaan ci dunduk sëriñ bi euh, la jóg nag ngir bind téere bi bokk na ci yim yër téere bi Muhammad Abdullahi al Alawiyu euh, moom taalif na ab téere ci jaar-jaari sëriñ Touba téere boobu moo tudd alminahu almiskiya fi siratil mbakki alminahul miskiya bi jamonoy sëriñ tubaa ko taalif nga xam ni wax nañ ni sëriñ bi ci boppam yër na téere bii nga xam ne dañ ko taalif ci ak ci ak ci ay jaar-jaaram téere booba itam téeram arab la waaye sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana taalif na ab téere bu tudd irwaa un nadim min asbi xubbil xadim Euh, téere boobu sax néew na téere bu ko gën a jotal moom it téereb arab la sëriñ Basiru Mbàkke taalif na ab téere bu tudd Minanu Baaxil Xadim fii sirati Cheikhil Xadim moom it téereb arab la ba tey sëriñ Baara Mbàkke moom Seexul Xadim taalif na ci téere boo xam ne arab la ba tey sëriñ Mouhamadul Mahmoud Ñang taalif na ci jaar jaari sëriñ Touba ñaari téere benn bi mi ngi tudd an nahju an nahjul qawim fii siirati cheikh al xadim moom it téerab arab la beneen bi moo tudd jaar-jaari borom Touba moom wolof la sëriñ Abdourahman Lo mu sëriñ mustapha Lo taalif na ci téere bu tudd al miawiya li nafi cheikh al xadim boobu itam téerab arab la sëriñ Moussa Ka taalif na ci jaar-jaari sëriñ bi téere bu tudd jasaaw shakur bu sëriñ ba euh, jisaawu sakkur boobu sax euh, téere sëriñ bi la ciy woy muy bu arab bi mu jisaawu sakkur atuuf fii jawaabi abdulatif moom la ci moom la ci moom la fi wolofal muy wax na nag téere yi ma tudd yëpp ginnaaw bi ma leen yëree ba noppi ci laa jóg bi awnillahi wa xusni tawfiqihi bëgg a dajale téere boo xam ni wolof lay doon ci waxiin waaye nekk itam waxin wu yomb waaye fas yéene téere bii ma sukkandikoo ko ci téere yooyu nga xam ni yër naa leen nga xam ni ñi leen taalif ñi ci ëpp fekk nañ fi sëriñ Touba jaxasoog moom lu yàgg ku ci mel ni Muhammad Abdullahi al Alawiyu ak sëriñ Basiru ak sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana mu wax ni maa ngi ñaan yàlla sama boroom nag mu may ma téere bi doon liggéey bu sell ci liggéey sëriñ Tuubaa yi doon loo xam ni dañ cee am lu kawe suñu njort ba keroog ñuy tàbbe aljanna bi jaahi seyxul xaddim kon njëkk feeñuk sëriñ bi lañuy ñuy daal di doore ginnaaw biñ xam leen téere bi war a tëdde ak li sabab ñu di ko taalif incha allah njëkk feeñu Serigne Touba ci Zahir njëkk Serigne Touba di feeñ ci Zahir jamono la joo xamante ni jamono ju doy waar la woon ndax jamono jamono yu nguur la booba buur yaa ngi fi waaye jamono yi ndamu yitam la woon jamono yu nguur la woon jamono yooyu buur yaa ngi fi ak seeni jëf waaye ñi xam te di ko ndamoo itam amoon na fi waaye ay naxaate itam bari woon na fi lool ak sax buur yi jaay doole ak tubaab yi jaay doole laaj yi wax ni naam alxuraan sax daanañ ko daanañ ko wattu daanañ ko jàng di ko mokkal waaye am na ci am na ci du ñëpp waaye am na ci ñoo xamante ni dañ ko daan puukarante woo ni ngeen yàgg dégg kilifa yi di ko nettali ci ñu mokk alquran ba pare euh, daan mel ni luy nguur rek ci kaw nit ñi ak kuñ dem te gana la woo leen baata yi ñu leen daan teg yooyu xëy na duñ ci sori lu ñu xam la waaye am na ñoo xam sax alxuraan liñ ci jàppoon mooy ku ñu ci bëgg a lor rek ngir barke bi ci ne daal di cay dogu euh, lor cee nit wala yu mel noonu loolu amoon na lu jiitu sëriñ bi donte du ñëpp xam-xam itam noonu amoon na waaye bari na ñoo xamante ni daawuñu ko jàng te yàlla tax daawuñu ko jàng ngir yàlla rek dañ ko daan jàng ngir bëgg ja waaw amoon na ñu ko daan jàng ngir bëgg ja yooyu sax sëriñ Moussa mi ngi koy junju te sëriñ fàllu silla euh, menn fàllu galas silla ndongal njaareem doon ko junj ci woy yooyu mu doon indi bërki démb doon te dégloogu ma yu tey lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sawu jant fépp mel ni làmbaay bi sëriñ bi ñëw nii la fekk réew mi euh, muy wax ni kenn amatul qasdu li waccillaahi kaang ak i fóore faf di jaani laahi nga xam ne jamono jooju la gënoon a doon daraja ca jamono jooja mooy doon buur buur moom amoon na daraja lool walla ngay mbokkum buur wala ngay ab attekatam walla ngay ab degam su amee ci yow boo boo dee mbokkam wala ngay buur wala nga def attekatam wala nga def dagam su ko defee moom nga manaam ak kóolute ci sa bopp yow di nga xam ne loo def mucc comme li xew léegi rek te it mënees na laa bañ songu euh, waaye danga am kóolute ci sang njaboot itam waaye bi lii di xew itam tubaab yi yilif réew mi am fi doole lool nit ñi ragal leen lool ba àgg ci ku gis ab tubaab day mel ni malaaka la gis loolu sax am na fu ko sëriñ bi junju di wax ni wa minhumu man in raa nasraani yaxsibuhu min malaa'iki rahmaani nga xam ne ab tubaab buñ ko masaa gis dañuy daw ngir ragal ko ci seen alal ak seenu njaboot ngir daanañ nungu alal waaye daanañ jàpp nit ñi di leen di leen def ay jaam kon xam naa li ci tegu incha allah ginnaaw bi ñu tënkee ginnaaw bi sëñ bi tënkee yenn ci nga xam ni sëriñ bi fekkoon na ko fi bi muy feeñ jamono am ñu koy jëfe ñu indi nag feeñu jamono sëriñ bi radiyallahu taala anhu sëriñ Tuubaa mi ngi gane àdduna ci Mbàkke Bawal loolu moom bind bindkat yépp maase nañ ci bindkat yépp maase nañ ci mbàkke bawal la gane jamono waaye fan la ci mbàkke bawal buñ ci duggee du ñàkk ay wuute moo tax nu bàyyi ko maanaam fi mu gane jamono ci mbàkke bawal moom ak wuute am na ca loolu moo tax sëriñ alxaaji bindaali ko loolu mu ngi doon ci atum mille deux cent soixante dix mille deux cent soixante dix ci gàddaay gi loolu itam bindkat yi bind ci histoire sëriñ bi ñu ci bindagul ñëpp maasa nañ ci ni mille deux cent soixante dix la ci gàddaay gi benent bi gàddaayee ba am junniy at ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk am junniy ak ñaar ak juróom loolu itam bindkat yëpp dat bii maasa nañ ci am na sax kuy wax ci ñoom ni xat wulidal xadiimu man qad sharaa shariatal muxtaari ama sharaa loolu atum sharaa moomu mooy mille deux cent soixante dix euh, loolu laa wax ni bindkat yëpp dëppoo nañ ci ni ci la sëriñ bi gane jamono te mooy at moomu loolu itam moo tolloog mille huit cent cinquante deux wala cinquante trois boo demee ci sëriñ Mouhamadou Mahmoud Niang ci téeréem boobu tudd jaar jaari yi borom Touba ci page loolu la bind waaye boo demee ci annahjul xawim moom Serigne Modou Mamoun Niang ci jaar-jaar jaari mille borom Touba itam 1852 rek la bind kon moom mel na ni lim gën a dëgëral mooy 52 ji Serigne Khalil Mbacke moom lam wax ca madrasatu Cheikhul Khadim ab téere la itam 1851 la. waaye daa ni am na ñuy wax mille huit cent cinquante deux kon moom mel na ni cinquante et un ji la gën a la gën a lëngal sëriñ Abdourahman Lo moom li mu wax mooy mille huit cent cinquante trois wala cinquante quatre waaye wax yu bari yooyu yëpp wax yu bari yooyu yëpp ak wuute yi bariwul njariñ ndax bu dee ati gàddaay gi xam nga li mooy atum tubaab bi atum tubaab bi milaadi waaye bu dee atum gàddaay mi moom Euh, ñëpp dëppoo nañ ci te at moom moo ëpp solo ban bis la gane àdduna itam téer yii ma yër yëpp téer yii sëriñ alaaji yi wax nga xam ne daf ko yër te mën ko ci ak njaal benn amul benn bu ci andi ni bis bii la gane àdduna lu dul ni rek euh, Abdourahman Lo mum sëriñ Moustapha Lo moom ma wax ni bisub altine la solo fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu bisub altine te la fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu kan mooy way juróom bu góor du ko ñuy xam ne ndax ñëpp xam nañ ko Mamor Anta Sali mooy woy juróom bu góor Mamor Anta Sali maam Habibullah mooy baayam maam Habibullahi mii Mouhamadul Kabir mooy baayam Mouhamadul mii maam Habibullah mag ma mooy baayam Mouhamadul Kabir mi ma waxoon ci ginnaaw moom lañuy wax maam Mahram moo sañ ci Bawal ci atum mille cent quatre-vingt-douze mille cent quatre-vingt-douze ci gàddaay gi euh, buur wala ka fa féete woon ca borom doole ñu ko xam ngoone Sabel moo ko dogaloon suufu Mbàkke waaye taxul sax mu mën faa dëkk moo taxoon dafa dëkk la woon ab taawam di Mouhamadou Farimata loolu mu ngi ci Irwaa Nadim bu Cheikh bu sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana euh, way juróom wu jigéen itam moom a Cheikhul Qadim ku ñu xam la muy soxna jaaratullahi Mariama Busa sëriñ Mouhamadul Mahmoud Ñang nee na Mariama Busa la tudd waaye ñu koy wooye noonu muy soxna jaara askanam moom soxna jaara mu ngi bokk ci tukkulóor yi nekkoon golare ci Fuuta Toora yi nekkoon golare fële ci Fuuta Toora foofu la askanoo nee nañu moom soxna jaara sërif la ndax aw askanam mi ngi ndayu ci سيدنا عسن من داوي سيدنا عسن دوم سيدنا علي كرم الله وجهه كن والو نجانغم القرآن إن شاء الله ربي والو نجانغم تبقم لنجي تك سري الحاج مبكة خادم القديم حفظه الله ورعاه داي وخني والو نجانغم القرآن سري بي كن وخلتي نياتا أدلا دالكي تيري مير kenn waxul ci ñaata at la tàmbali njàngum alxuraanam waaye nee na xam naa ne ci waxtu wu teel la ndax sëriñ tuuba bi mu jël wérdu xaadir fukki at ak ñaar lay war am fukki at ak ñaar la am jël wird muy wérdu xaadir te booba fekk na mu mokkal alxuraan bu yàgg nijaay lengeem moom sëriñ bi ñu wax sëriñ bu Busoobe sëriñ Busoobe moo ko dalal loolu sëriñ sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana wax ca Irwaawu Nadim waaye tuuti la ko jàngal moom sëriñ bu soobe jox ko ku ñuy wax tafsir Mbàkke Ndumbe tafsir Mbàkke Ndumbe mi nga xam ni mooy nijaay soxna jaaray lenge tafsir moom jamonoy noor Mbàkke Bawol la daan nekk jamonoy newat nag mu nekk fële ca Jolof moo jàngal sëriñ bi ba mu toll ci la tajidanna ashadda nnaasi adaawa booba la faatu sëriñ bi dellu ca Maam Mor Anta àggale am njàngam booba Maam Mor Anta mi ngi Saalum bi mu àggalee njàngum alquran ci woy juróom ba noppi la tàmbali di jàngi xam-xam ba jàng lu bëree bëri ci woy juróom di baayam Maam Mor booba itam wax nañ ni daa farlu woon lool moom sëriñ bi waaye doonoon ku neex am xel doonoon ku rëy am xel doonoon ku rafet am xel am xel moo xamante ni itam moom sëriñ bi ci ak mokkal ak mën a ràññee mën a dégg yéem nañu bari wax nañ ni itam daana def ay bayit di ko yët xood yi ma jaxate kala mu ko koy toppal ba mujj xaad yi da koy wax nii del indi may mokkal waaye mënatuma laa toppal nga xam ni xaadim mi ngi koy wan ni ko euh, ci ak mbaaxam yaa ngi raw nga ma sëñ Mouhamadul Mahmoud ñang nee na sëriñ Touba mësta laxas benn yoon di jàngi fenn ndax foofee mu nekkoon fa la ñu daan laxas di fa jàng see ci ca foofa ci jamono joojoj muy ci waajuram muy kër Maam Mor Anta euh, ci biir njàngam moomu ak xelam moomu ko yàlla joxoon moom sëriñ bi demoon nañu demoon na ba ñu bëree bare bëri ci donga yi euh, bëgg maanaam xeemeem di jàng ci moom ngir lan maanaam xeemeem di jàng ci moom wala si maam Mor Anta Sali maanaam donga yi demoon nañ ba sëñ Tubaa donte ab donga la woon ci biir daara ji xeemeem nañ mu jàngal leen ngir leerug làmmiñam bu leen jàngalee sëñ Maam Mor itam daa doonoon ko bar lool loola waral ñu bari sa waroon sëriñ bi di leen jàngal wax nañ ni Maam Mor daana ko jàngal bind boo xamante ni ka ko war a jàng ñëwagul ngir bu xëy see sëriñ bi jàngal ko ko maanaam sëñ Tuubaa àggoon na ci am xel foo xamante ni téere yim àggagut téere yim àggagut buñ ko ko jàngalee mu mën koo jàngale téere yim àggagut boo ko jàngalee bind ba rek moom dina ko xam ba ki ko war a jàng bu ñëwee mu mën ko ko jàngal te boobu téere yooyu ak gucca euh, loolu doon lu am solo loolu itam sëriñ Mouhamadou Lamine Diop moo ko wax ci Irwa u Nadim sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana mii nag ci secrétaire sëriñ bi la bokkoon ci diir boobu sax ci la sëriñ bi taalif téere bii di Mawahibul Quddus bi nga xam ni ummul barahin la ci woy wax nañ ni sëriñ Maam Mor Anta jàngal na ko ñaari doomam muy sëriñ Coro Mbàkke ak sëriñ Afia ba tey ci jamono jooju ci la sëriñ bi taalif al jawharun nafis ak mu layyinu sudur waaye masaalikul jinaan moom mu ngi ko waaye Mbàkke Bawal wala Daaru Salaam waaye am na ñu wax ni da ko faa maanaam fa la ko àggalee waaye teewut nee nañu daana dem njaañ léeg-léeg moom sëriñ bi ci benn naar bu fa nekk naar boobu mu ngi tuddoon Muhammadul Yadaali daa fa jàng bayaan ak mantiq naar boobee barabam ma nga njaañ siyaar naa ko sëriñ alxaaji Mbàkke mooy wax walillahi alhamdu nee na diir bi bépp nag sëriñ Tuubaa yéeme na lool waaye weesuwul jàng ak jàngale ak taalif ak jëfe xam-xamam ak ndigalul Maam Mor déggal ko lool nag sëriñ Bassirou Mbacke mi ngi wax ci minanu baaxil xadim ci xëtu 46 nee na sëriñ Touba mas naa nettali ni sàmbalaw be faal mi nga xam ni moo mujj ci buuri kajoor yi mas naa ñëw ci sëriñ Maam Mor Anta Sali toog ak moom ci kawub lalam waa kay euh, sëriñ Bassirou Mbacke loolu muy nettali ci minanu baaxil xadim ci xëtu 46 di wax ni sëriñ Touba mas naa nettalil boppam ni Samba Lawbe Fall bi nga xam ni moo mujj ci buuri kajoor yi mas naa ñëw ci sëriñ Maam Mor Anta toog ak moom ci kawub lalam daal koy woolu sëriñ Maam Mor yabal yable ndaw ñu woo ko moom sëriñ Touba mu ñëw mu ni ko Samba Lawbe mii daa bëgg nga ànd ak moom dem ca këram mu jàppale ab sëriñ nga mel ci moom ni ma mel ci nijaayam Lat Joor nee na mu ni ko ba mu génn kon waaw ba mu génn ñu waxtaane ko dal di dellu néegam moom sëriñ Tuuba radiallahu anhu bi sàmbalaw ba génnee fekk ko mu toog cib toogukaay di jàpp moom sëriñ bi sëriñ bi wàcc jox ko ko maanaam jox ko toogukaay ba mu toog ci ngir mu daarante ak moom ngir mu daarante ak moom waaye nanguwu caa toog mu tàmbali di ko wax wàllug dem gi sëriñ Tuubaa ko xalaatuma dem di fi bàyyi ñi nga xam ni dañ fee ñëw ngir xam lu seen diine dañ fee ñëw ngir xam lu seen diine mu ne ko waaw bu fekkee loolu <clears throat> mënul am maam loolu mënta ne loolu rek la lii aw naaru góor la wu baax maa la ko jox sëriñ bi nee na ma jël ko ngir maslaa ma jël ko ngir maslaa ba sàmbalaw ba demee fekk am na ñett ñu ko topp ñoo xam ne ku ci ne amel na ko borub téeméeri dërëm nee na mu téye leen moom sëriñ bi jaay naaru góor a ci ñett téeméeri dërëm séddale leen ko ñoom ñett ñooñu nga xam ne amel na leen bor allahu akbar ngir jàngale ne nit du am bor ba pare di maye waaye li ko xamal ni ñi am nañ bor ma ni loolu baatin bu rëy rëy la loolu mi ngi bokk ci ilmul xëy bi nga xam ni suñ borom du ko jox lu dul ku mu gërëm waaw du ko jox lu dul ku mu gërëm ku ko xam xamoo ko suñ borom moo la ko xamal waaye dina koy xamal ñi mu gërëm ci li leen séddalee euh, ñetti téeméeri dërëm yooyu nga xam ni ku ci ne yoraloon na la ab ab ab téeméer kenn wërta yor bor di maye loolu des na ko dégg ci jàngale bu am solo bi waaye ci biir nettali bi ci biir nettali bi da ci dégge euh, Maam Mor Anta Sali ni ko sëriñ bi wormaaloon ba bëggute wax sax luy wuuteeg moom ndax noonu mu ñàkkee tontoo Maam Mor du dara lu dul bañ ko wax bañ bañ a wax muy dégg lu ko naqari ci moom ak bañ a moom ci ndigal da nga ci xamee itam ay tegginam yu bari moom sëriñ bi sëriñ Mor nag laataa muy nelaw sëriñ Maam Mor Anta Sali ci la sañ ci Mbàkke Kajoor waaye ñaari at rek la fa am faatu kon xam naa nelawug Maam Mor Anta lañ ciy teg incha allah waaw kay nelawug Maam Mor Anta Sali mi ngi nelaw ci aw tam xarit atum 1300 ci gàddaay gi tolloog 1890 ci dundug Seydina Isa ci juddug Seydina Isa kon Maam Mor bi muy nelaw gis ngeen ni Serigne Touba ci fanweeri at la toll waaye booba taalif na ay téere yu Maam Mor Anta Sali xeemeem ba di ko jàngale waaye toll na foo xamante ni itam bëggoon nañ ko def xaad yi ci jamono jooja waaye d'accordu ci ngir ni am nañu fi ñëw ngir xam lu ci seen diine te loolu ñooñu ñu xamal leen ñooy priorité ba tax du leen fi bàyyi dem di nekk ab attekat mi ngi mel ni ku pare woon métier jàngale rek waaye sa sa way jur yori donga euh, gouvernement bi bëgg laa jël yóbbu la université pour nga jàngale nga ni déedéet ginnaaw ay élèves ñu ngi sama kër bàyyi foofu laay toog jàngale sëriñ bi bi way juróom di nelaw mi ngi toll ci fanweeri at rek ñenn ñi wax nañ fanweeri at ak benn loolu mi ngi toll ak atum mille huit cent quatre-vingt euh, ci juddug Seydina Isa ba muy nelaw sëriñ Touba ñëw na ci wetam jàng fa ab kaamil ba mu jeex tàkk guddik talaata yi tam la Maam ànd Anta Sali nelaw loolu sëriñ Mouhamed Lamine Diop Dagana moo ko wax ci Irwaaw Nadim boo demee ci xëtu 27 da nga ko fekk ñu rob ko fële ci deqale rob gi deqale itam moom moo ko dénkaane woon ku ñuy wax Tayba Mouhamad Ndumbe Maar Sill moo ko jullee ba mu ko jullee ba noppi itam ay xew-xew am na fa xam naa yëpp dañ ko tënk ne bu ci mën bu ci ne mën nañ cee taxaw ngir saraa ko euh, ba mu ko jullee ba noppi la wax ña fa teewoon ñëpp ngeen déglu ma am lu ma leen wax bala ngeen a dem daa di jaale ñëpp daa di ni sëriñ Bamba jigesil daa woo sëriñ bi ngeen mu jigesil sëriñ Tuubaa ni ko maa ngi dégg da ngeen tudd sëriñ Bamba wi mu jëfandikoo ndax noonu lañ ko doon wooyee ci jamono jooju sëriñ Touba ni ko maa ngi dégg mu ne ko dama bëggoon bu ñu jógee fii ñu jaar fële ca Joor nga fasante ak moom wëllëre wa sa baay fasante woon ak moom mu teg la fa mu tegoon sa baay te loolu dana baax ci yow sëriñ bi sant ko ci li wax ni ko ci li mu wax wax wax ju am solo jooju ni ko waaye dem ci këri buur yi de daray àdduna jaraluma ko jomb naa ko waa dem ci kër buur yi ngir daray àdduna jomb naa loolu dara jaraluma ko bi sëriñ bi waxee lii nag ñu bari ci mbooloo mi dañoo jaaxle ndax jamono jooju am lu mel nii daa jafe mooy président teg la fenn fi walla buur am ñu naa ab dof la am ñuy wax leneen ca booba la sëriñ bi daal di bind xasidaam gu siiw googu nga xam ni xëy na duñ ci sori muy xasida xam موم لاي وخني قالوا لي قالوا ليركن لابواب السلاطين تهز جوائز تغني كل ما حين فقلت حسبي ربي واكتفيت به ولست راضي غير العلم والدين ولست ارجو ولا اخشى سوى ملكي لانه جل يغنيني وينجيني بخس دغ جيخ تيبتنك دي وخني نيت ني نيغي ناما ديمال سي بونتي بوري كون باغا ام loo jàpp waxtu wu ne ma ne leen yàlla sunu borom doy na ma te doyloo naa ko bëgguma lu dul xam-xam ak diine ragaluma ku dul sama borom yaakaaruma ku dul sama borom bu ma soxlaa moo koy faj bu ma soxlaa suñ borom moo koy faj te moo may musal itam ginnaaw lii nag la nit ñi gën a jaaxle ci mbiram waaye teewul mi ngi jàngale ni ko daan defee ci jamonoy maam Mor Anta Sali rek ci loolu la continué ba léegi kon xam naa li ñu ci teg mooy tàmbalik tarbiya ak sëriñ bi tàmbalik tarbiyaam tàmbalik tarbiya sëriñ bi ci yoor yoorub aljumma ci yoor yoorub aljumma ci atum mille trois cent deux waxoon nañ ni mille trois cent ci la maam Mor Anta faatu kon mille trois cent deux ginnaaw ñaari at ginnaaw bi maam Mor Anta faatoo ci yoor yoorub aljumma ci gàddaay gi war a tombeeg mille huit cent quatre-vingt-quatre ci la Sëriñ Tuubaa jóg taxaw wax ni ndigal dama bàyyi ko fa rasulullahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam ndigal dama bàyyi ko fa rasulullahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wax ni danima del yar sa gaañi bañ mën a xam yàlla te bàyyi njàng njàngalem kese kese ndeysaan nga xam ni moo dellu siwaat léegi ah, jàng ba pare ragaloo yàlla jàng ba pare nungoo wax yoo xamante ni ak mën a wax yoo xamante ni wax dëgg yàlla wala jàng ba noppi ñu di la gis ci yoo xamante ni wërta tax a jóg mbir yi loolu sëriñ bi doon daw loolu itam la ko rasulullahi ni ko bul yem ci njàng njàngalem kese mu jóg taxaw nag siiwal ko ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daf maa dikkal dani ma deel yar sa gaañe bañ mën a xam yàlla te bàyyi njàngalem kese-kese daal di wax moom sëriñ bi ni ku loolu doy toogal te ànd ak man ñu dem ku mu doyul man ngaa dem foo mën a àggale sam njàng baax na am ñoo xam ni loolu doy na leen bañ toog ànd ak moom am ñoo xam ni gëm nañ ko waaye dañu ñoom jàng rek moo leen fi indi woon di ci boole leen moom taxu leen a jóg buñ jàngatul kese-kese dañuy dem fuñ mën a jànge bokk na ca gaay yi jëkk a toog sëriñ daam abdourahman loo dante histoire baaxoon nay wuute waaye ca bokk ca bis ba ak sëriñ ma masamba Diop saam sëriñ aadama Gueye moom moo njëkk a jaayante ca bis booba loolu moom téere bi andiwu ko waaye sëriñ Moustapha Lo mi ñu xam euh, wax na ko awal nee sëriñ bi sax moo ko bindal boppam awalu man amana bii ginnaaw woote ba wa ali Adama Gaye fa ma Diop Samb sëñ Moustapha Lo nee na sëñ Touba bind na loolu euh, ak sëriñ Daaro Xasan Ndiaye ci li sëriñ Xalil Mbàkke wax ci téeréem boobu nee na sëriñ daa Abdourahman Lo daa nekkoon Mbakol ca jamono jooja waaye bi sëriñ bi di waxee wax ji ci bis bi la ñibbisi te bi ñëwee daa daal di jaayanteeg moom sëriñ bi tàmbali di tarbiya gaayam yooyu ci xiif ak ci mar di leen tuddloo yàlla lu bari di leen liggéeyloo ngir seeni xol set ba mën a xam yàlla suñu borom ci loolu suñu borom xar xol yi def ci sopp ko moom sëriñ bi ñi ëpp euh, nungul ko waaye itam ñu sopp ko lool waaye teewul ni mu amee ñu ko sopp euh, ni la amee nag ay bañ te loolu mooy li baaxoo am ci kaw suuf wala iyaasu billah ci bañ ko lan moo waraloon ñenn ñi bañ ko mooy siiw gi mu siiw siiw gi mu siiw ak daraja ji ko sunu boroom jox ak ko ak ni ko nit ñi dëgmale nga xam ni jëf ndigalam moom sëriñ bi jaral na taalibe yi lu ne mujj nit ñi tàmbali di ko lor nag ngir soppe yu bari yi ak àndandoo yu bari yi ñu ko iñaane commencé di ko lor di ko lor ci ay àndandoom ay lor yu metti boobu sëriñ bi mi ngi mbàkke bawal gi ñu xam waaye lor yu métti yooyu tax moo tax mu sanc ab dëkk euh, ci wetu mbàkke bawal ci atum mille trois cent quatre ci gàddaay gi tolloo mille huit cent quatre-vingt-six ci atum tubaab ci lu Abdourahman Lo mu sëriñ Moustapha Lo wax ci téeréem boobu tudd mi mi euh, a asikral ya te foofu mooy daaru salaam maanaam bi mu jógee Mbàkke donte jaar na gaawaan doonte téere yi andiwuñ ko foofu si jumaay Sëriñ Moustapha Coyti ji nekk sanc nag daaru salaam foofee fa la Sëriñ Mouhamadul Moustapha gane jamono Sëriñ Moodu Moustapha itam ci guddik aljuma guddik aljuma ci atum mille trois cent six ci gàddaay gi ci la gane jamono waaye teew teewul bi lor yi jeexee bi yi jeexee wala mu néew wala mu wàññiku nit ñi nag ñu ngi yokk bu baax a baax ci daaru salaam <clears throat> ñim nekkal itam am ñu ci commencé am ay soxna di ami doom te loolu day waral jaxasoo bi bari di yokku te tërbiya laaju loolu mu mujj demaat ci wetu càmmoñ ga càmmoñu daaru salaam sanc fa dëkk bu ñu wax Touba ci mujjantalu atu ci mujjantalu mille trois cent cinq atum mille trois cent cinq euh, mille trois cent loolu moo tolloog 1887 1888 ginnaaw ba Cheikh Mouhamadul Fadal gane jamono euh, am na sax ñeneen ñu wax ni Daaru Salaam la gane jamono donte nettali boobu moo gën a siiw ni Daaru Salaam la gane àdduna ndax moom Cheikh Mouhamadul Fadal ci boppam daana fa ñëw euh, di fa di fa di fa fanaan si guddi kas rajab kon ñi wax loolu itam wax dëgg yàlla seen wax jooju moo gën a dëgër Euh, ci kasu rajo bi itam la gana jamono at moom itam ci la Sëriñ Baara gane jamono wala ci at ma ca topp rek di mille trois cent huit ci gàddaay gi ci la gane jamono waaye teewul la lam doon bañ moom sëriñ bi muy jaxasoo bi di am ba léegi boobee la tàmbali moom sëriñ bi nag di xalaat ci toxu faneen ci jamono yooju rek la sëriñ ci dañuy tënk rek dañuy tënk ndax ku ne xam ne ne sancug Tuubaa nekkug Daaru Salaam yooyu yëpp matoon na ay jataay waaye ci jamono jooju rek ci la féetale Euh, maam Thierno wàllug njàngalem xam-xam féetale sëriñ daam Abdourahman Lo wàllug jàngale alquran waaye dénk sëriñ Mbàkke sa teg ko tuubaa mu doon buntam nga gis ni doxalinu sëriñ bi foo toll da gis ak organisé wu ni mu ciy feeñe daa ànd ak mbooloo moomee mbooloo mu dëggal moomee wuteeg ñoom jolof ni yenent bi sallallahu taala alayhi wa sallama tuxawoon makkatal mukarrama jëm madinatul munawwara loolu itam mi ngi tollook atum mille trois ci gàddaay gi mu ngi dëppoog mille trois cent dix douze mille trois ci gàddaay gi euh, tolloog mille huit cent quatre-vingt-quinze ci atum tubaab bi mu àggee Mbàkke yi mel ni waa dëkk ba loolu jubuwu leen ndax dañoo njortoon ni kuy wut nguur la rek ndax booba daanaka kenn xamul kuy koo xamante ni li muy def lépp wut yàlla rek a tax ñoom xamuñu woon loolu moo tax ñu njortoon ni kuy wut nguur la taalibe itam ku dégg li sëriñ baa nga foofa rek mu daal di fay dem ñu bëree bari jaareetuñ ca sëriñ bu Buso waaye teewul sëriñ bi moom nit ñi li ñuy bari bari liñ koy bëgg-bëgg liñ koy songu-songu teewul mi ngi ci li ko tax a jóg muy jàng ak jàngale ak yée nit ñi ngir lan loolu la ko rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ma digaloon loola waral sax mi ngi wax moom sëriñ bi naan loolu waral sëriñ bi mi ngi wax naan wa min ajaib ibni abdillahi salla alayhi باق أداء أرضه بالأولياء إلى القيامة وكل وليا سنته وزانها عن بدع تبصيره قديمه بفصدع أمره صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه بأن يعلم المريدين ومن يقبل منه النصح من أهل الزمن وأنه أوصله عن تخلية لربه مبصرا بتحلية ci ab tënk sëñ bi day wax ni bokk na ci kéemtaani yenent bi sallallahu taala alayhi wa sallam bégal gi mu ma bégal ci fasdax bi ma tuumar maanaam woote bii ma woote ngir weesal sunna si yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu yenent bi alayhi salatu salaam moo ma ko sant moo ma ko bégale moo ma ko digal waaw fasdax bi ma tuumar wa arid anil mushrikin nee na ginnaaw bi mu rekkee ci man moom yonent bi sallallahu alayhi wa ci lépp la bon takkaayale ma lépp lu baax àggale ma ci yàlla ba noppi nag la ma sant ma woote ci biir loolu moom sëriñ bi daana xamle boppam léeg-léeg ngir bëgg ñépp mën a jariñu ci moom wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis xiiwal ak suñu borom dafa sant ñu di ko ñu di ko waxtaane loola waral muy wax ci yenn béréb nii ci jamono jooja xafistu ma zina an dafatiri fala takun an xidmati bi fatiri wattu naa loo xam ne nekkul ci ay téere kon nag bul tàyyeel ci liggéeyal ma wattu naa loo xamante ni nekkul ci ay téere kon bul tàyyeel ci liggéeyal ma mbokk yi ku dem ba suñu borom di la xamal lu romb li ñuy gis ci téere yi kooku ku ne xam na ni léeg-léeg boroom téere yi euh, mën nañuy wuute ak ñoom mën nañuy wuute ak moom waaye ku wuute ak moom itam ndeysaan dañuy fekk ni rek da àggul ci àgguwaay wa moom sëriñ bi sax daana wax ni ngir xam la xiiwal yooyu ko yàlla defal nasa lii wa laysa minni yansau wa nii bihi ximan wa mafsau sunu borom jox na ma loo xam ni dootu ko nangu ci loolu laa nekk ab wéeruwaay akub làquwaay ci loolu laa nekk ab wéeruwaay akub làquwaay euh, ak tarbiyaam nag moom sëriñ bi waaw kay ak tarbiyaam nag moom sëriñ bi ni mu ko mooy ku mu xool ba xam ne li gën ci yow dala cay féetale ku mu xool ba xam li gën ci yow dala cay féetale mbokk yi loolu liñ ciy dégg mooy sëriñ bi dégg gim dégg sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi nit ñëw ni ko ayul islaami afdal jënd islaam moo gën mu ne ko birrul waalidayni nit ñëw ni ko ni ko ayul islaami afdal mu ne ko an tutima taama wa taqara salaama maanaam li ma bëgg a wax mooy bari na ay xadis yu ñëw nit laa yonente bi lan moo gën yonente bi wax ko lii wax kee leneen wax kee leneen boobu dafa fekk ku nekk rek xam na ni kii lii moo gën ci moom mu jaarale ko ca xam na ni yonent bi alayhi salaatu salaam xam na ni kii lii moo manqué ci moom mu jaarale ko ca Sëñ Tuubaa méthode boobu la doon doxe ak taalibe yi noonu la daan tarbiyaa itam ku nekk day xool li gën ci yow ak li gën a manqué ci yow mu jaar loola ca ku ne xam na ni sëriñ bi daana wax ni maanaam jëf yi bu ñu teewee yow bii moom da cee sawar da nga ko mën ci misaal am na ñoo xamante ni koori ngàtt nga dañ cee sawar lool am ñoo xamante ni jàng alquran dañ cee sawar lool am ñoo xam joxe dañ cee sawar lool sëñ bi nee na ñaari jëf yi bu teewee nag yow pour nga nat sa bakkan pour nga mën a jàll pour nga mën a doon kuy dox da ngay xoole yow bi nga xam ne sawaroo ja nga fexe ba man booba loolu mooy ak njàmbaar maanaam yow joxe nga bindoo waaye toog nag bank say tànk ab diir bu yàgg jàng ab kaamil loolu daf laa jafe sëriñ bi nee na nga xeex ba man booba maanaam mu ëpp tuyaa ba ëpp solo ci sa xol ci maanaam mën continuer rek di di di mën a joxe ndax lii xëy na sa domaine la nga fexe ba sa domaine nag li nekkut sa sa domaine nga ay ci loolu dafa am solo xam naa bu fekkee lëndëm na maa ngi maa ngi jégalu euh, doon la junj itam moom sëriñ bi maanaam ginnaaw bi nga xamante ni ñenn ñi daf leen di maanaam ni mu daan tërbiya ni mu daan tërbiya moom sëriñ bi day xool nit ki li gën ci moom rek mu awale ko ca am na ñoo xam ni da daan jox wér dul qaadir wérdul qaadir am ñoo xamante ni moom Serigne Touba wérdu Tijaan la leen daan jox ñu di ko wérd am na ñoo xam Serigne bi ni laan leen daan tarbiya wérdu qaadir la leen joxoon ñu di ko wérd fu ñu toll am ñoo xamante ni wérdu Tijaan la leen jox ñu di ko wérd fu ñu toll am ñoo xam ni da leen di jàngloo alquranul karim fu ñu toll am ñu muy liggéeyloo am ñu muy bindloo nii bokk na ci yennat ci ni Serigne bi daan tarbiya daan leen wax itam ni leen حد الإرادة بقول السادة ترك المريد ما عليه العادة ثم رجوه إلى المعتاد قبل وصوله كارتداد إذ المريد لا يريد أبدا غير رضا الرحمن حيث قصدا ci gàttal دق dëgg-dëgg ab murid mooy bàyyi aada murid buy dell ci ay aada te àggul ci yàlla mi ngi ku ndax murit warta bëgg lu dul ngërëmul yàlla sunu borom daan leen wax itam ni am murit war a mel di leen wax ni sifaatu saadiqil muridi bi ixtisaar arbaatun nazamtuha xaw fa ixtiraar الصدق في محبة الشيخ أبد ثم امتثال أمره حيث ورد وتركه وترك اعتراض مطلقا ولو بباطن عليه فيما قد رووا ومعه سلب الاختيار لحضن ظنه بلا إنكار فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك ثقات moom sëriñ bi da leen daan wax ni meloy murit bu dëggal ñeent la meloy murit bu dëggal ñeent la fu ngeen ko gis nit ki mel ni xam leen ni kooku murit bu dëggal la melokaan yooyu ba ci jiitu euh, ne sëriñ bi nee na maa ko woy am li tax ma woy ka ngir bañ waru bi ci jëkk mooy dëggu ci sopp sëriñ dëggu ci sopp sab sëriñ ñaareel ba mooy topp ndigalam donte sëriñ bi dafa santaane sëriñ bi ñu war a topp mooy kan waaw sëriñ bi ñu war a topp mooy kan mooy xam moo xay mooy ki nga xam du la digal lu dut li rasulullahi digle li suñu borom digle ñaareel ba mooy topp ndigalam saa soo ko déggee ñetteel ba mooy bañ koo diingat ñetteel ba mooy bañ koo diingat moom sëriñ ba euh, kon xam na ci misaal comme li xew léegi Cheikh Mouhamadoul Mountakha santaane gii mu santaane takkum masque yi léeg-léeg mu am ñoo xam dañoo gis ni yëf yi du dara ba tax duñ ko takk bu boobaa dangay ngay génn ci loolu ngir lan jàppal ni bu dee information ci àdduna wax dëgg yàlla nag placé la na ngir ngir ngir ëppale la ko bu dee xam suñu borom itam wax dëgg moo la ko gën a xam kon bu ko santaanee yow bul xool lii ak lii defar rek ngir daf koo digle ba pare daf koy jëfe waaw mooy nga bañ koo di donte ci sa xol la ñeenteel bi mooy dind ak tànn ci sa bopp day delluwaat ci li ma doon junj dund dind ak tànn te bàyyi sëriñ bi dina la tànnal bind ak tànn nag ci sa bopp ngir rafet njort ci ni ab sëriñkat bu matub sëriñ boo ko tànnee ba noppi lam la digal mooy li la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di digle sëriñ bi sax dana ko leeral ci yeneen béréb mu ni ñeenti melokaan yii képp kum daje ci yow danga dab gaa yu màgg ya waaw ku koy jëfe da nga dab gaa yu màgg ya ndax nee na fa cheikhu dëggi-dëggi sëriñ laa yuxaaliful mushafaa du woro mukk ak yenent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ni mooy rammaakon ba fa man na naxaa amra murabbin tasaa képp ku jëfe ndigalul sëriñu murabbi sayxul murabbi sëriñ bu matub sëriñ nee na da jariñu ndax ab sëriñ kat du wuuteeg yenent bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ dëgg-dëgg du wuuteeg yenent bi ci dara kon kuy topp ndigalam danga nga jariñu ci biir li lépp nag noonu ñoom tooguñu benn yoon ñu ngi dem ak a dikk ngir seet pexe mi mën a jaar ba yàqal sëriñ bi tubaab yi itam dañ daan def suuf suñ sanc ba not ko dañu jël nit ci ñoom teg ko fa ñoo xam ne dañuy ànd ak ñoom ci lépp maanaam dañuy seet ku leen déggal ñu teg ko fa su ko defee lu xew ñu leen koy nettali ñu leen ko yëgal ñu mel ni ñoo ñii nag ñoo doon defi pexe ak di dox tànk ngir fexe Serigne Touba gem ngir fexe kenn du dogu turam ngir fexe ab ligéyam taxaw ta moy yeesal sunna si yonent bi alayhi salaatu salaam te xamuñu ni liñuy fexe mom du massa soti mukk am na benn boroom xam-xam benn woykat bu waxoon ni wa isa arada allahu nasra fadilatin tuwiyat ataaha laha lisaana bu yàlla bëggee tasaare ngëneelam lum taxañoon da koy jaare ci làmmeñu ko iñaan bu yàlla bëggee tasaare ngëneel lum jaaraloon da koy da koy tasaare da koy jaarale bu ko bëggee tasaare da koy jaare ci làmmeñu ko iñaan ñooñu dañu ñu di leen ci tubaab yi ak ak ñëw di waxal sëriñ bi ba àgg ci ni sëriñ bi day dajale ay nit di leen tàggat di ko nurale ak ñi nga xam dañ doon songo ak tubaab bi ci ay ngànnaay di leen wax ne sax sëriñ baa ngi waajal ay ngànnaay yoo xam dafa bëgg a jóg yéen colonialiste yi yéen français yi yéen tubaab yi fi ak ñi ngeen àndal ngir dal seen kaw baagi ji di ko nuraleeg ñi nga xamante ni jàmmaarloo woon nañ ak ñoom ci ay ngànnaay ku mel ni Maba Jaxu Ba ak Ahmadou Cheikh lii moo tax ginnaaw bu baatin bi donte sëriñ bi moom lépp euh, dana feeñ ni lu mu xamoon la te suñu borom la ko digaale loon lii moo sabab nag buurum ndar bind ko ab leetar di ko woo waaye sëriñ bi wujjuwul ci jamono jooja loolu gën a dëgëral waxi seytaane yooyu doon wax ni sëriñ bi day waaj ngir dal ci seen kaw waaye teewul sëriñ bi ku ne xam ne ni dindi dindi tuuma dindi tuuna dindi tuuma sunna si yenent bi alayhi salaatu wasalaam la yenent bi dafa taxaw moo soxnaam am ku leen romb ci ak lëndëm ci yéefar yi yenent bi ni ko ay diw euh, ba mu gis ko mu ni ko man la diw man la muhammad ak sama soxna ngir bu demee du am lu mu duural sëriñ bi bind na ab lettre ngir teggi tuuma ngir loolu sunna la lettre boobu maam Thierno la ko jox ngir mu indi ko jox ko ko lettre bi itam la ca nekk mooy xamal tubaab gi xamal tubaab bi rek ni ko maanaam man ak yow bokkuñu ay jubluwaay maanaam bokkuñu ay jubluwaay di ko wax ni ko bokkuñu itam lu leen di lu ñuy wut ku leen wax lu dul loolu day fen waaye maam Cerno ba muy joxi borom ndar leetar bi fekk na mu yebal ñuy jël si sëriñ bi war koo jëlee Mbàkke Baari andi ko ndar diggante boobu bari na lool lu fi xew ak maam Cerno ba muy waaj ak ba muy xalaata wut ay yére yum sol ngir ña ko xelaloon ni ko waa ndar ñoo ñu ngay dajal ñenn ñi day nitu àdduna kon boo mënoon naa am col gu méngoog col gi col gu méngoog ñoom te bi ko sëriñ Tuubaa yëgee ni ko yére yi ngay sol boo nekkee ak man ak di ma liggéeyal demal ci laa def tàggat gi may tàggat tubaab bi te bi mu demee tubaab bi nooy nepp ci moom te yàkkamtee gis maam Cerno yooyu yëpp yu bari la yoo xamante ni xëy na dañ koy tëb rek wala dañ koy tënk euh, bokk na ci xew-xew yi nga xam ne mënoon nañ cee yaatal bi mu ñëwaatee ci sëriñ bi moom maam Cerno waxtu fajar la fekk na sëriñ bi moom waaj ba jekk julli ba noppi ngir dem ndar daal di wujj tubaab bi bi maam Cerno ñëwee tàmbalee nettali rek ndeysaan sëriñ bi dog ko da ko dagg ni ko xam naa lépp daal di ni ko njaboot gaangoogu wax njaboot gi ni leen dénk na leen yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk jot na ndigal nag ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko demal te bu ragal ak wor yiir ko ci mbooleem lor yi motax tax bi di wax ni wa jaala al mukhtar sallallahu alayhi fi al ali wa man walahu lahu ija hijaban mani'an min al darar thumma lahu khalam si la taxta gharar bimu génn mom sëriñ bi mbacke bari lolou mo tolok fukki fan ak juróom ñet ci wéru safar fukki fan ak juróom ñet ak we ci wéru safar moo tolloog màggal gi muy génne mbàkke baar yi waaye ñu bëri sax day njort ni booba sëriñ bi Touba génne waaye booba mbàkke baar lay génne ci weeru safar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mooy bisu màggal gi mbàkke baari la ko fekk mu war faa génne ngi wuy ji tubaab bi ci atum 1313 ci gàddaay gi moo tax muy wax ni xarajtu yowma sabti famina asar li xidmatil muxtaari fii sahri safar tolloog juróomi fan ci septembre wala lu ko y ci atum 1895 ci tubaab xam naa dañuy taxawlu foofu incha allahu rabbi bu nu ñëwee suba ak jàmm incha allah ñu continuer ci demuk géej gi nag mooy doon suñu ñaareelu jotaay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xanaa di sant bu baax a baax euh, sëñ sëñ loo yi xam naa ne ab looyeen moom bu añagut du mën a wax sax waaye bind na di ma jubbanti ak di ma leeral ci ñoom del maam soxna maam bu sami wax tamit soxna moom yi muy wayjuru sëriñ alxaaji mbàkke te soxna moom mii di wayjur di doomi sëriñ saalihu mbàkke ci leeral yooyu ñu ngi ko ci sant bu baax a baax di wax ni euh, ñun nag danañu neex lool waxtaan wu mel nii wala ya leneen lu dul képp ku am loo ci leeral rek loo ci jubbanti sax ak loo ci d'accord nga leeral ko loolu moom dañ ci dañ ciy sant bu baax ndax day tax ñu gën cee xamee rek bu ko defee jubbanti gii nga ma jubbanti moom am naa ci mbégte bu baax a baax leeral yi nga ma leeral yi tam tubaarkàlla xam naa xamoon naa xam naa soxna mu bi sax waaye bi may wax tur yi fàdd na ma wax dëgg yàlla boo ma wër wër loo boo wax soxna maam bu sa rek ndax soxna maam bu sa boobu mi sama xel jërëjëf